transparence bu gis fii ci ci vote bi parce que depuis le début le MCS Fulla ak Fayda dafa mës a wax ne nañ ko def élection ci jàmm dañoo mës a wax ne ñun MCS Fulla ak Fayda que ne euh, deretu Pikinois benn deretu Pikinois bu tuuru ndax loolu day firndeel ne ñun ñun classe politique bi yëpp échoué nañu donc man euh, jàmm Pikine jàmm Sénégal moo ma gënal nguur moo ma gënal pouvoir moo ma gënal mairie moo ma gënal présidence de la république donc loolu moo tax tey ma rafetlu li fi xew ànd ak sama coordonnateur euh, départemental Wébé Sougou tey moo xam ne moom aussi euh, il e dans mu ngi si liste coalition Yewwi Askan bi muy coalition bi nga xam ne aussi man président Abdoulaye Mamadou Guissé may réitérer sama encrage ci coalition Yewwi Askan bi di aussi di aussi woot appel à l'électorat pikinois de voter pour un changement donc loolu moo waral sama sama teew fii euh, voté def acte citoyen bi nii sama baaraam a ngi nii donc euh, di ñaan nag jàmm am fii ba après 18 heures parce que l' importance c' est vote bi ñuy voté nii nii mais après vote bi euh, que na ñëpp nangu ne li résultat bi am na ko ñëpp nangu parce que man transparence laa fi gis te wax dëgg yàlla Euh, gisuma fi xiiroo gisuma ŋaayoo gisuma fi kenn ku taxaw fee di kaas def nañu lii bulletin manqué na wala dara manqué na amu fi. donc ñu ngi ñaan yàlla élection jàll. parce que dafa gum tous les centres de vote. mais je pense que Elimane Ndiaye dafa gum ak école set bi may voté nii. mais impression bi moom mooy le vote se déroule normalement à part le salle de vote bi ma voté ba nga xamante ni j'ai déploré ni ñuy voté parce que dans la commune moo a jiitu la ville alors que ñoom dañuy voté à la ville soog a voté à la commune nga xamante ne nii liste commune la am. ca veut dire qu'une personne peut venir voter à la ville, marquer loxoom génn dem sans pour autant que vote à la commune. alors que vote commune moom la war a jiital soog teg ville soog ci département ci ñam département. wax naa ko je pense que remarque boobu dinañ ko jël en compte pour jéem corriger ça. mais tout compte fait aussi li wax rek li des mën li des ci électorat ñu kon ba ngoon aussi ils sont déjà battus. bon pour l'instant signalé guñ ko fenn ñaari centre yi ma dafa gum daal je pense que bulletin yi am na disponible na et que le vote se déroule normalement à part li ma signalé ni daal je pense que li des amaguñ cas boobu je vais continuer de faire le tour des de vote pour à peu la situation après bu ñu defee le point peut-être naa a revenir mais pour l'instant daal sama xam-xam foofu la ci yamagum quoi non man li ma wax ñëpp je pense c'est très la ville actuellement si on va enlever Ablaye Timbo on n'a qu'une seule alternative c'est moom mooy réalisme politique donc li mën a ne je l'ai dit à tout le monde naa ah, yeewi ma nëbbu ma ko kenn li mën a ne mooy dañu fi wéeru yi Abdoulaye Timbo jëlee fi Abdoulaye Timbo ki gën a mën a taxaw pour ñu def ko si fal ñu Cheikh ñu fa fi Abdoulaye Timbo après ñu dem li ci des tous les autres candidats que ça soit Hervé que ça soit ñeneen ñooñu bu ñu demee daje au niveau de la ville mhm. dans le bureau municipal mën a discuter pour que kenn ku am cër boo mën a jël ñu àndandoo pour defar Pikine mais a jege actuellement a wooteel na certitude boobu la ñu war am ci département à part heure ñu wóor ñi actuellement aussi Ablaye jël na ay bagages dem ñu teg Pikine ci ay loxo doomu Pikine yu am ambition wu defar Pikine yu bëgg Pikine yu am cawarte gi pas des paresseux comme Ablaye Timbo parce que vraiment ça a été une erreur mu def erreur pendant sept ans bëgg doon pendant cinq ans nit ñëpp pour man l'histoire dañu toll ci fa nga xamante ni nii histoire moo ñu xaar histoire boobu ñuy xaar moo dañu war jël suñu responsabilité xool dëkk bi ak njëriñu dëkk bi ñu taxaw ci njëriñu dëkk bi pour l'intérêt kese dëkk bi kenn ku ne fàtte sa bopp kenn ku ne fàtte sa intérêt ci respiration démocratique bi fi am am nañ juróom-ñetti candidat ku ci nekk am campagne nga campagne bi jeex na ci jàmm malgré que dégâts amoon na fi ba sunu meeting de clôture nitu Mapenda yi romb seen caravane dóor ñu ay pétard ci seen kanam yéen a ngi may gis ngeen may filme berog ba ngeen yéen a ngi ci woon meeting bi gis ngeen ne ñoo romb dóori pétard yàpp yàpp ay L200 ak ay saret ay xeer fa ñu nekkoon amul xeer tali la ci kaw tali mag sama buntu kër donc li ci metti mooy am na vingt et un blessés moom it am na quelque blessés mais ki ci gën a metti mooy Pape bi nekkoon Pikine TV te bëtam tuuru ci kon xeer yi bu jógee ba am ay dégâts ci ñaari boor yëpp ñi a xeer yi ñu ñooy responsable tuuru bët di dégg naa nag ci presse bi dugg ci WhatsApp bi defar ay photo naan jara sànq na bëtu jaamur loolu tooñ la ak manipulation ak essayer de victimiser wu pour yërëmtalu pour ne man la fekk moom ma pen dafay parfait parfait fii may wax yow signalé fii sama commune benn dégât sama mandataire yëpp ñoo ngi ci bureau yi ci centre yi sama siégeant yaa ngi ci bureau de vote yi ñun amuñu xajeek seen ci élection yi ba ci démb ci guddi policiers yi ñoo leen indil ay reer jox leen ataaya tey it ndekki noonu la añ noonu la parce que man damay ràññewu ma en tant que maire la may def ci kan laa koy defal doomu askan bi yëpp laa koy def ku bëggul tamit am nga sañ-sañ ne bëgguma duñ la forcer ñi bëgg jël loolu mooy liggéey bi nga xamante ne def nañ ko ba pare donc gisuñu benn dégât bu fi am donc ñoo ñu félicité. Pikine Nord moo ñor te on est des voisins on est des frères loo xam ne vraiment lu la yitteel mooy ànd liggéey commune bi bu ci xeex naree am am na leneen lu nekk ci esprit personne yu porté yenn liste yi. parce que bu dee koo xam ne jariñ commune bi rek moo la tax a jug vraiment yenn yi mën na cee ñàkk quoi parce que ku nekk boo gaañee sa morom ëllëg yaay dem seeti ji ko ku gaañ sa moroom yaa ko ciy faj donc am na loo xam ne mën na ñàkk suñu biir ñun ñëpp on est des frères on est des amis ku nekk boo gisee sa moroom ci turam ngay jaar donc yenn ñu nguur jaru ko Pikine noor il faut que leader yi am générosité entre nous doomu Pikine noor war na jël cëram ci répartition pouvoir yu ñu def au niveau du Sénégal mais lan mooy malheur bi les leaders dañuy soxorante te àdduna nit ñi war nañ mën a am laabirante surtout koo dëkkal koo xam ne yéen bokk ñu mën a laabirante am xol yu rafet yéenante jàmm xam ne jàmm rek moo ñu ñor ñun de yeewu askan bu ñu yàlla mayee dam képp koo xam ni nekk nga ci commune Pikine Nord di fi yeewoo ak foo mënti bokk boo amee ay compétences danañ la intégrer suñu gestion déjà pour nous plomber dans les communes parce que am na ay vote yoo xam ne dana nekk ay vote nul te Yewwi Askan Wi lañ koy votel bu amoon deux deux deux bulletins buñ ko amoon sur euh, les bureaux day gën a yombal vote bi te bañ nañ ko ba dañu inversé vote bi commune lañ nit ñi dem démarrer boo pare commune doo ko songu ville bi mais bi dañ ko inversé uniquement pour leurrer davantage les gens mais yàlla lu mu namm allah kulli alin du ay pexe koy arrêté waaw loolu rek laa a parce que ba ma ñëwee yeewu suba teel ville bi la ñu commencé laan ni teg dil la dox ci maayanu nit ñi la parce que nit ñi bo suñu communication bañ koy def dans au niveau de nos proximités lu ñuy wax boo yeewoo da ngay yeewu jël bulletin yeewu askan voteel ko xam nañ ñu écho boobu parce que am na ay renseignements généraux yi ñu sànni ci biir population bi ñoo ñooy wax ni leen bu gars yi defee loolu yeewu askan parce que xam nañ population yi seen xol li ci nekk yeewu askan wi la léegi nag il faut ñu les votes yeewu askan ñu annulé ci le maximum ay dix à trente pour cent mais malgré tout cela je pense que waa Pikine noor nañu xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk baay xeex xulo gaañante xejul ci sunu biir ndax tey lépp lu mën a xew bu paasee ñooy daje ci marché yi ñooy daje ci dispensaire yi ñooy daje ci kon yi ñooy bokk daara moo ñooy bokk xew yi lépp lu xew ci Pikine ñoo koy bokk kon nag sunu diggante dafa war a rafet li xew démb metti nam metti na ma ba ci kanamu yàlla. léegi moon na am xam nga moom mal attendi day am te xam naa ne xeex bii ñu xeex tamit xam nañ ne ñoom kenn mënu leen a xar ñaar ambition yi rek moo taxaw bu paasee ñun ñëpp benn la ñuy doon nañu delloo si sunuy xel ñu xam ne commune bii ñun ñoo ko moom. képp ku fi mënta jiite tamit commune bi lay yore budget commune bi lay yore képp ku yeewoo ci commune bi budget bi am nga ci droit kon nag képp ku fi yàlla teg na nañu xam ne yàlla moo ko fi teg. maa ngi ñaanal monsieur le maire 16 heures yàlla jël victoire bi jël ndam.